ma bëgg a dumal yéene yi après loolu tax. Euh, waaw génn naa avant safar yi ñëw. waaw damaa génn ba par rek safar yi ñëw bëgg a yooyu après man ma doog a dem euh, ñoom ñoom sax moo ma ko quoi ma dem toog fale quoi waaw loolu la. dëgg ñoom. am na ñoom am na ay vélos yu am na ay soq man ak sama benn gaay ak sama ñaari gaay ñoom am na ay blessé yu mais garaaw garaawul man tamit eh, noonu la parce que am na ko xamante ni dee na waaw man kese ak sama ñaari gaay ñoo àndoon après ñoom sax amuñu benn problème waaw. noonu oto bi ci la jógee daal di ñëw fanaan fi nga xamante ne moom moo di Richard Toll yow fan nga yéegi. man Fouta laa yéegee si côté département Podor Saldé waaw foofu laa yéegee ay 19 heures laa yéegee foofu après euh, doog a ñëw ba Richard ay une heure ñu fanaan foof ba quatre heures doog a euh, jëlaat yoon bi après ñu dem ba ay entrée Louga bi foofu lañu def accident bi ay côté seteur heures xaw heure boobu rek ñu def entre ñu def euh, accident bi. nee na accident bi benn taxi la doon moytu daal di saaraan ak dëgg la wala yëf yi euh, taw bi moo ko sax mën na nekk dëgg la parce que heure booba dama doon nelaw tuuti après dama yeewu rek gis euh, taw bi ñëw après ma bëgg a ah, ma bëgg a loolu pour taw bañ dugg si ci biir oto bi après ma gis emprunté non kii chauffeur bi. di glisser oto bi di def ay volant yi di zigzag rek après oto yi daanu quoi après mooy loolu demee waaw waaw lan boobu waaw man moom. damaa gis actuellement man yëg naa si am lu mu métti foofu sama loxo waaw sama tànk yooyu waaw dafa métti nag trop waaw bëgg mënu ma ko saa génn oto bi def effort rek ma génn donc dem vraiment dem dimbali yeneen yi quoi waaw noonu la demee ok.